lu mu jeexal si réew mi si Macky Sall mooy population bi dañoo gën a sonn man loolu moom mu njëkk jaaxal si Macky Sall te biñ koy fal dafa waxoon ne bu ngeen ma falee dinaa leen jàppale waaw ndaw yi surtout ndaw yi danaa leen jàppale mais boo xoolee population fu nekk ne ndaw yi ñoo gën a sonn foo dem ñu ngi jooy waaw loolu doyut ñu dolli ñi suñu liggéey li ñu amoon sax di liggéey di faraatoo ko néew di si faraatoo ko ay dërëm ñaar dërëm dañuy ñëw duñu koy tere foofu tere ñu fu ñuy jaayee du ñuy dàqee du ñuy indil ay fitna te chaque jour ñu ngi jooy te amuñ kenn koo xam ne ñëw na wàll ñu ñëw ña jàpp lañu si waaw surtout luyaas bu mu la waxoon ne da koy wàññi luyaas bi dafa gën a yokk man bi muy wàññi luyaas bi ci luyaas la ma fekk mais fay vingt cinq mille ñu wàññil ma vingt mille ki loolu ma dafa ñëw na dafa soxla foofa génnal damaa soxla sama kër ma génn mu yokk ko di koy luyee bi cent cinquante mille ci cent mille la ñu ko luyee xam nga ne loolu dafa rafetul te Macky Sall nee na day wàññi luyaas gannaaw booy waaju liaas nga wut ñoo xam ne sax ay agence yoo xam ne dañuy topp si biir kër yi di xool yow ñaata lañ loonu la luyee nangam wàññi nañ la nga ne waaw léegi ñaata ngay fay nangam laay fay ah ba léegi loo ngay fay nga ne waaw nga duggaat si kër laajte bu fekkee ne dañoo yokk ñu jël loolu daan ko teg ko daan mais boobu ba léegi kenn gisul kenn dugg si kër di laaj loolu rafetul mënumaa fexe fexe fexe fexe ba liggéey maa fexe ba liggéey fu ma dem di liggéey ñu ne ma du foofu te yàlla wasagul ma ma am loo xam ne mën naa dugg si place amaguma ko man fu su mbedd laa am pour jaay tu mbedd dem ñu dàq la foo dem ñu dàq la bu ñu waxee ne Macky Sall moo joxe.